حسن الإله mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax te di leen siyaarewaat te leen di fàttaliwaat rekk ne noo ngi di ànd ak yéen fii ci daarul xafuur ci màggaluk maam saaliwu Fall gu tedd gu kawe gii kan mooy maam saaliwu rakki maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine damay wax léegi ci samay kàddu nii diggante maam saaliwu Fall ak maam Cheikh Ibrahima Fall dafa may fàttali walla boog mu may nuru wala mu may junju diggante maam na Birahim Ndaamal Daarul Moxti ak Cheikh Ahmad Bamba Xaadimal Moustapha waaye firnde ja day waral ni li ma leen wax léegi rekk ci samay kàddu ci suba ni nuróoga moo waral tey baatin feeñ ca ba tey ñuy màggal maam na Birahim fee nga xamante ne bii mooy Daarul Moxti di màggalal maam Saliou Fall ci fii nga xam ne mooy daarul xafoor kon ni ñu ko defee léegi rek ginnaaw bi ñu bàyyi koo ci sëriñ Dame Saliou dem ci njabootuk sëriñ Modou Ablaye Fall ak fi nu aw yëpp ñi ngi fii nag tey ci kër maam Saliou Fall di sëtub jàmbaar ju tedd jooju nga xam ni moom la ñuy màggalal waaye feggoo ak sunu xarit suñu kóllëre di lépp ci moom di kóllëre ci moom di xarit ci sëriñ bi di sëriñ Ibrahima Ndiim ah waaye nu fegoo ba tey ak sunu nijaay sëriñ Jibi Gueye ak mbooleem koo xamante ne bii tey ñëw nga ci bis bi ànd kook sunu jëwriñ sunu sëriñ sunu xarit maam Saliou Fall soxna yaa ngi nii toog ñoo ngi leen di siyaare ñoom itam di leen jox seen wàccuwaay ci bis bi waaye nag nu fas yéenee ànd ak sëriñ Ibrahima Ndiim waxtaanee kan. ki nga xamante ne bii moo waral tey taalibe yi bàyyi ko fu ne ci àddina ñëw ci dëkkam bu sell bu kawe bii ngir fàttaliku sunu jàmbar jooju di maam Saliou Fall sëriñ Ibrahima Ndiyem duñu sori moom la ñuy jox kàddu gi mu dugg ak ñun ci dunduk maam Saliou Fall ak kan maam Cheikh Ibrahima Fall magam ju tedd ju kawe jooju waaye dugg ak ñun ci daarul xafoor gii nga xam ne fi la dañu daje tey ndigal li nga xamante ne bii moo bàyyi koo woon ci ku tedd ki ñëw ci maam Saliou ba tey njabootam gi féete fi di ko màggalal kon sëriñ Ibrahima Ndim la ñuy jox kàddu gi jërë ngeen jëf auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baal Mouridine barke Cheikhuna Cheikh Bamba Khadim Rasoul barke maam Cheikh Ibrahima Fall barke mbokki asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñoo ngi delluy sant yàlla bu baax di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Serigne Touba Seydou Khadim di sargal bu baax maam Cheikh Ibrahima Fall di ziare bu baax a baax Serigne Cheikh Sidiel di ñaan yàlla mu may ko wér te mu yàgg fi lool. waaye di siyaare bu baax daam sëriñ Dame Saliou di ko ñaanam baax sama borom mooy ko wér te mu yàgg ak njaboot gi yëpp euh, di siyaare bu baax it maam Saliou Fall mii toog ñu feggool di direct ci sëriñ bi waaye di kenn ci ku tedd ki euh, sëriñ Mourtala ngi la nuyu bu baax a baax di nuyu mbokk yi nga àndal yëpp. di waa télévision bu tedd bii nga xam ne mooy waa mu faatul Bichri di siyaare baax sëriñ Jibril géey ak mbokk yi fi nekk yëpp euh, waaye bala ñoo dem rek ci waxtaan wi sëñ la naga ni si daaw bi ñuy ñëw fii dañoo àndoon ak suñu xarit suñu rakk euh, Adama Thiam te tey yàlla dogal mu wuute ko dem ci dogalub suñu borom tey ci suba nga xam ne ci fajar rek nuyu na ma ne ma day waajal daaru xafoor ji waaye diggante boobu rek ci rek ndog dal ba yàlla moom ci bakkanam tey ci suba ñu ko ñaana bu baax mokkum fa fekk ci barke borom daaru xafoor sëñ Murtala maam Saaliw borom bis bii nga xam ne tey moo nañ bokk dajale daje fii daa bari la ci ngëneeri sunu borom yi lool waaye tam dafa sori ci nguurug yàlla gi lool am ci garaat yu foor yoo xam ne ñu kawe la woon garaat yooyu maam Saliou Fall amoon bokkoon na ci mu daan wax ne burutoon sëñ bàmbakat du Cheikh Ibra du Cheikh Ibra di man ngunda te it daan na wax ne sëñ Bàmba kat ba ma ko séenee su ma demoon kon tey maa yilif Ibrahima loolu fu yàlla defut dara du mën a deme noonu yi te maam Saliou Fall maam Cheikh Ibrahima mi magam soo ma saana wax ne saaliyu Fall maam Cheikh naa la kooku mag la danaa kooku mag la maam Saliou di rakki maam Cheikh Ibrahima Fall gane àddina euh, ci mille huit mille huit cent cinquante ci Kajoor Roy Atumaan waaye tamit teel a lool ak magam ju baax ja maam Cheikh Ibrahima teelan koo doyloo bàyyi woon ko boppam nga xam ne mësuñoo tàggoo ci benn bis mësuñoo tàggoo ci genn guddi euh, lu jiitu lu jiitu maam Cheikh Ibrahima Fall di génn dem di seet ci sangam bu sangam bu tedd bi di Cheikh Ahmadul bàmba moo ak maam Saliou borom daaru xafoor seeni jaloore dafa rëyoon ci Kajoor Euh, bokk na ci benn bis boo xam ne maam bu njaay njaree mi nga xam ne mooy seen waajur maam Ahmadou Faar Roqaya mi nga xam ne mooy seen waajur wu góor bi ñu nekkee ci njabi xam nga jamono boobu adduna melu nii booba mala yi bari na njaay àll yi bari na euh, loraa ko ci àll bi bari na waaye maam Saaliw toll ci bootaay maanaam liir ci saayir doon liir sax boo xam ne liir bu yees la maam Ahmadou Farokhe daal di xëy bis daal woo maam Seyni bu Njaay ne ko Seyni bu dama bëggoon nga dem ca dàgg ja nga jaar ci sàq mi jël fa sayu dugub dem ko dàgg ja boo jël ma ko te booba naaju tàng na tàngoor woo xam ne njaay àll yi ñuy wax gaynde ñoo ngi ci biir déeg bi nga xamante ne moo jàkkaarloo ak fi maam Seydi mu Njaay fas ne bojje waaye ndigal li ko boroom këram jox du ko tebbi ilaa yu mu diin donte ka bakkanam day des ci fa muy dem di bojji ala kulli al day mottali rek ndigal li maam Seydi mu Njaay wax na ne bi muy waajal di jël dugub ji jëm ci dàgg ji ci la seen gaynde gu mag goo xam ne mi ngi dugg ci biir déeg bi te mu leer ko ne bu déggee kuur gi dal jombul ne gay gaynde googu dana génn dal ci koom waaye mu am ngëm-ngëm ak pas-pas jël maam Saliou Fall boot ci ginnaawam takk ba mu dëgër daal di jël dugub ji dem ci dàgga ji daal di commencé bojj nee na maam Seyni mu jaay tàmbalee bojj tuuti. la maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baar Mourideen daal di daw romb nday seeni bu Njaay dugg ci biir garab yooyu yi nga xam ne foofu foofu la gaynde gi nekk bi mu fa duggee maam seeni bu Njaay dal di àgg suuf jël kuur gi mu yoroon daa koy teg ay ronxoñam toog mu ne man de sama doom jiir di Ibrahima xamoon naa ne léej gi mu léej ak coow li ko topp ak wax ji ko topp du mucc mukk te ak deyam du sedd ndax gaynde gi mag gis mu dugg fii de faawu dana gisee moom lee metti nag mooy dee gi nim nar a mittee nee na maam Saliou Fall liir bi mu ci ginnaawam daal di yëkkati loxoom teg ci bopp maam Seydou Ndiaye ne ko sama ndey maam Seydou Ndiaye ne ko Fall. mu del ne ko sama ndey mu ne faal ko Ibrahima Samba gii ruu yàlla bind ñimewoo ko ne xanaa xamoon ne Ibrahima mag ne moom day Samba gii de mas nañoo toggoo aw fas man ak moom liir la mi ngi boot ci ginnaaw ne mas nañoo toggoo aw fas maak moom ak ku ñu wax sëñ Bamba fas yu daw ba yàgg ñu romb benn bul mu ne ma saaliw xam nga bul bii ma ne ko déedéet mu ne ma bul bii yàlla da koy xar daal di koy tàllal def ci ay biddiw samp ci weer daa ko tudd asamaan su keroogee man ak yow danañ wàcc bul bii tiim ñu maa ak yow ñu liggéey Serigne Touba nee na fas yu daw ba yàgg ñu romb beneen bul nee na maam Cheikh del ko ne Saliou xam nga bii nee ma ne ko déedéet Fall mu ne bul bi suñ borom dana ko mas a tàllal ko samp ci ay garab wàcc fa ay doomi aadama tudde ko suuf bu keroog a dana jox ci seen biir di leen ràmmu di leen tàggalee ki bàkkaar di leen tabal àjjana ne ko sama ndey amul genn ruu goo xam ne man nake sama roog gu baax ge dara nee na maam seex Ibra li mu def keroog mooy dafa dugg ci xur wi dem ba tiim gaynde gu mag gu tëdd di nelaw nee na maam seex fëgg ko gaynde gi jóg fudd maam Cheikh Ibrahima Fall téye ki nopp bi wommat ko ba jàkkaarloo maam Seyni bu Njaay ne ko yow ñëloor gi soxna Seydi Bojj mooy suñu ndey te moom daf laa wut ma bëgg nga ne mott génn njabi bàyyi lor te dem jaamu ji yàlla nee na gaynde gay daw di daw ba kenn séngatu ko nee na keroog bi maam Cheikh génnee ci xur wi waaxu wut siwaat soxna si la maam sayil ne ko sama ndey Ibrahima sama gii di ñëw di ruy yi waxal gaynde gi mujj gën tuuti ne ko nun day dangay jox ci àddina waaye bokkuñ ci loolu nag maam Cheikh Raye waxoon na ko dagale woon na mag ñi ñoom sëñ Masamba Diop Sam sëñ Malem Diop Dagana sëñ Daam Abdourahmane Lo ñoom sëñ Moussa Ka ak mag ñëpp ca njaarim ne leen werante daa bari ma bëggoona liin a xibaar li ma boole ak sëñ ba mu leer leen ba kenn du yàqu ma ngi ne ko suñ ko mënee xam day faal def ko maam Cheikh ne leen damaa liggéeyal ba mu gërëm ma yóbbu ma àjjanay firdawsi ne ma fii laa lay fayee ne ma àjjanay gi laa lay fayee waaye ci biir firdawsi maam Cheikh nee na am na benn pays bu ñuy wax ruqaa nee na ruqaa la ma suñ borom yóbbu woon ma toog fa ci génn njoowaan nee na njoowaan gi maam Cheikh moo nettali wax ne njoowaan dama suñu borom tegoon muy joow bëccëg façon naaru góor doon daw junni at duñu ma mag moom kon njoowaan ga doy na kii man nee na malaayka ya di ma joow waaye su ma sëggee benn sëggi benn sama njañ lii jóg aras jaay kursu jaayu nee na noonu laa fa nekke woon ba yàgg Seydina Jibril dikk ne ma sa borom ña nga ñëw wuy si ko nee ma ne ko Ibrahima mën a jibril xanaa xanaa kon nit ñëpp danoo jeex ba saabara taxaw yàlla atte jaam ñi jibril na ma déedéet sa borom nee na nga dem sangu ci sam-sam naan kaw sara ba màndi te ñëw wuy si ko maam Cheikh nee na mën a jibril demal na suñu borom ba ñu sàkk kaw sara fi naa fekk ba ñu sàkk sam-sam it fi fekk ba man na ci ay leeram moom yàlla ba léegi naanu ma ci genn leer ci kaw suuf nee jibril dem daa koy sunu borom yàlla ne ko wax nga dëgg keroog ba ma ne kun sama jëmm ji xar la ëppoon solo génn ki ko leer moom moomee la woon dem wal ma ko nee na jibril dikkaat ci moom ne kaay wuy sa borom maam Cheikh nee na maa ngi fekk yàlla ci menn montagne moo xam ne géej gi mu tiim nee na géej gi ku dul man soo ca xuusee danga nga ruy ba mel ni sondeel nee na ca laa xuus dem ba jàkkaarloog suñu borom nee nuyoog moom ne ko yaa woolu nee suñu borom ne ko maala woo dama bëgg nga ñëw dem dellu daaru duniyaa Ibrahima kaay dellu daar duniyaa maam Cheikh nee na ma ne ko man kat àddina dem naa fa demati fa. góor yàlla yëpp maanaam yóbbu keroog xare badar ba yéefar yay fetti jullit yi xeejey naaw jëm ci yonent bi dama bañ genn xeej laal ko moom nabi ma dem fab ko boot ko rogonti tag ko ci sama ginnaaw gi jël sama njañ yi muur ko toog ca gileem ba xare badar dàq noonam ya delloo ko Makka ak Madina kon Makka dem naa fa demati fa yàlla ne ko kaay dellu àddina kii ma lay yóbbuloo ku mel ni moom daa mës dem àddina ñooñ ngay wax ñëpp kii lañ gën maam Cheikh nee na ma ne ko du mooy yóbbu ku ma xamut mooy kan ne yàlla ne ma sa borom bi la bind te moom la mooy dem daar duniyaa te kenn at nukk ko du yow bii mu tollee foofu la ko sëñ Moussa Kane ñun kat faal suñu amoon ndigal nga may nu nu bind lii ngay wax mu ne ko Moussa bind leen sëriñ Moussa Kane mas nañu xibaar ak njébbalam na yàlla mi ko moom moo ko ne Cheikh Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe maam Cheikh wax ne mën na yàlla waaw sa jëmm ju màgg ko tedd ji boo demee àddina nooy tudd ne mën a Abdullahi Xaadim Rasul Abdullahi Xaadim Rasul laay tudd nee ma ne ko fooy dëkk mu ne ma Touba nee na ma ne ko waa yow su ma fexee ba wane la ba ñëpp xam la loo may warul. nee suñu borom ne ko waxal li nga bëgg ma warul la ko maam Cheikh ne yàlla tànnal ma nee suñu borom ne ko li ma lay njëkk a jox bul julli bul woor natoo asaka sàkkoo murum ko ajoo màkka yaa ko am ak ku yaakaar bu ngeen faatoo dellu àddina fi daw si maam Cheikh nee na man yàlla xeeb naa ko loolu kat ak coxot la yow képp ak sa waa kër dong doyut ne suñu borom ne ko defal naa la nopp bu dégg sa tur danaa ko jéggalaale maam Cheikh ne ma ne ko xeeb naa ko yokkal ma ne suñu borom ne ko léegi loo bëgg mu ne ko su ma nee cëpp àddina néew ba njëkk faatu ci aadama ba ci kii mujj a faatu ñëpp jéggal leen ne suñu borom ne ko ñëwal dem lii nga wax saabu bu sunuy bët ñeenti àddina rek ma signal la ko maam Cheikh di di di nettali lu doy waar nee na ci wàccaay woow nga xam ne amoon na ko ak sëriñ bi. nga xam na ci dikk àddina rek moo ko soxaloon nee ma ne wërëñ bay dem seen mbedd mu ñuy wax siraat ma ne yàlla lee la mu doon nee suñ borom ne ko siraat la jaam bu faatu da koy jéggi bu saw yiw matee dangay mel ni melax waaye soo mat la wun nag da ngay resta bi sawara ma ne yàlla lemal siraat mais jox ma mbaar ma dem ne keroog la suñu borom wekki siraat ne ma Ibrahima siraat amatut li nga bëgg def ko rek moo tax mu ne àddina kat sëñ Bamba ñetti at la ma jiitoo nee na keroog bi mu matee Seydina Jibril moo ñëw biir si ne ko sa boroom nee na ma nga àddina di xaar jaam ñaa ngi fa sawara yey na leen te kenn mënu ci ñoom dara rek dul yow dikkal moo tax mu ne sëriñ yaaram mbay yaaram mu ne faal mu ne ko yaaram mbay doom loolu jigéen gi def ñu naa wan aw lor juróom-ñeenti weer yi nday seen bu njaay am mosuma yendu ci biiram mbaa fanaan ci biiram maam yaaram mbay na ko faal nonoon def mu ne ko su bëccëgee ma dem ci pays yàlla yi bu guddee ma dem naa ni Kawsara juróom-ñeenti weer dell na ko yaaram mbay mu ne faam naa yaaram kat sama dëkk àddina laa lay xibaar ne ko yaaram kat nday séeri mu njaay jaaru ci aw mat maam yaana mbay raam ne ko faal loolu nu mu demee mu ne ko ah, dama koo déey kat ne ko defarul ki nga xam ne bu ëllëgee bu génnut jaam ñépp dem naari mooy jaar ci yow ne ko sama ndey bu ëllëgee bu nit ak ginneeg malayka teewee bu yàlla ne ana ndey kii ramu jaam ñi yow seeni mu jaay mi lañu yëkkati daan maam yaaram yaaram mbay mu ne faam ne ko yaaram nday seeni bu njaay kat faaruk càmmooñ nga laa raay far ga ubbeeku def bunt maaw maaw cën a cëpp nuyoog moom delloo far ga ko dara mittiwu ko ne ko yaaram xanaa aw sàkket soo ko takkut sañoo ko baddi maam yaa ne waa ah, déedéet faal mu ne ko yaaram dañoo bokk ku njëkk bokk noo ko mujj nii la maam Cheikh def waaye bi mu bi mu ganee àddina it daa mel ni gumu mboq mboq moom nga xam ne danga nga koo xolli kawar yooyu ciy muuru yaramu maam Cheikh bi daa defi kawar ba fees dell ba mën mënoo gis ci moom njàpp yaramam dara waaye tamit biir loxo yi dañ cee bind benn loxo bu ne allahu ak dënn bi ak ki làmmiñ wi léeg mu gëmm léeg mu xool maam Seyni mu jaay xool ba yàgg mu jooy daan ne man de xaw ma li am rab la mbaa ginne la keroog lañu woo nag tàngami njare ak tàngami njabi ñoom ñoo dikk di xool liir bi ba yàgg ñu ne ko bu sa doom ji ak xànc la mu ne bàyyi luy xànc mu ne xànc mooy loo xam ne dafay ñëw léegi waaye léegi mu dem liir bi ne ñoo ket toog ci kaw lal bi joxoñ leen ne leen xànc gii mooy takk seenu say takk say ku yàlla bind daan ne dikk fi dem taxut ma ñëw maaseeg yéen taxut ma ñëw fi askan noogi yéen mbaa di bokk ngeen taxut ma ñëw fi sëñ Bàmba lay wër si kepp su ma gisee moom ngeen texe su ñàkk gisee moom ngeen dem naari kenn ma su gis boobu liir ku dul bu njaay njare ah dellu waxaat maam seen njaay ne ko mbaa déggoo fi sëñ bamba ñëw ba dem maam seeni njaay ne ko woowu tur maa ko soo ko sam nopp mu ne ko ah bu ne cat duggu dee dana gisee ak moom bu leen cat duggee na xawma ko dara bi maam Cheikh di wax loolu amagul toqental euh, maam dem ba maam jaay lañ dem mu bind toqental bi ni ko andee boole ci meewum béy raam ba ci lal bi ay Aysatu Jóob nekk ko doon jox dana jëyi loxoom liir bi téye ci tikku jaraw yi ne ko loo ci jublu mu ne ko gan su ganee àddina day am toqantal maam Cheikh ne ko nun kat ban ñuy toqantal aadama seen maam juddoogu te te maga nañ ko junni at ak ñaari téeméer maga nañ ko junni at ak ñaari téeméer te ci kaw loolu maam Cheikh wax na ne Alxuraan kat yàgg na fi ba ko suñu borom tëggee téere bi yegg nee na amul genn góor yàlla koo xam ne atta nga ko nekk sama dënn bii la ko yàlla denc juróom ñaar fukki junni at aadama sogaam nga gis ne kon sëñ Mourtala maam Cheikh kenn daa mënut xam lu mu doon te nee na fii ci àddina kat doom dañ fee umpule waaye àllaaxira kat ku ñëw fekk ñuy saboor te loolu Serigne Touba Xaadim Rasul waxoon na ko. Ibrahima yaakaar naa ne kàddu yooyu nga yëkkati ko jëmale ko ci jàmbaari cheikhul xadim maam Cheikh Ibrahima Fall làmp am na solo lool waaye xam naa ne li nga nuy dolli mooy rakkam ju tedd ji nga xamante ne bii nag moo waral tey. fu ne ci àddina nit bàyyi koo fa ñëw ci dëkkam bu sell bi di daarul xafoor muy maam Saliou Fall di ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine euh, sëriñ Ibrahima loo nuy dolli ci jëmm jooju. Euh, jërëjëf sëñ Mourtala maam Saliou daara ji nga xam ne fa la maam Cheikh Ibrahima génne fa maam Saliou jànge turaatu maan ba noppi dem Mbàkke Kajoor ànd ak sëriñ bi ci maa ngi na Mbàkke Kajoor maam Saliou Fall ca la bokkoon maam Saliou fii ci daaru Xafoor jinne yi nga xam ne. daanañu dem di jébbalu ci ci ku tedd ki maam Saliou Fall moo daan dagale wat leen ba ñu jekk mu jàppal leen ba ñu sell door a ànd na ñoom dem ci Serigne Touba jàngale nuy jébbaloo bépp jinne joo xam ne da ngaa ci sëriñ Touba maam Saliou mooy ki la wat tuubal la yóbbu ci sëriñ Touba nga sukk jébbalu te Serigne bi mas na koo téye ci loxo ne ko Saliou bu ëllëgee mën a xeyaamee nanga bàyyi Ibra ak nit ñi te jàll jinne yi te jàll jinne yi maam Saaliw am na benn taalibeeb Cheikh bu Kunta Njaasaan boo xam ne dafa nekkoon bitim réew bi mu nekkee bitim réew amoon addiyaam bëgg ko yónnee Njaasaan waaye amul pexe menn moo xam ne addiye jooju dana mën dem Ndiassane ci Cheikh Bou booba maam Saliou mi ngi fii Darou Khafor euh, taaliba bi ma nga bitim réew waaye daal dem jël xaalis bi jënd ko ceenu or daa koy sànni ci géej gi daal sama addiye jii de Cheikh Bou Kounta Ndiassane moom laa koy jox bi ko bàyyee ci géej gi aw jën daal di lekk ceenu or googee ba lekkee ba lekkee ceen ga. nappkat yi nappi jàpp jën wa andi ko ndakaaru yàpp ko ci ay kees di ko tasaare jëm jën yi Touba bi ñëwee ba Daaru Xafoor ñu gaare wàcce fii ci penc mi mag ñi ne ñeenti kees la ñii ne juróomi kees la waaye maam Abdou Awa Ndiaye moom nee nañu ñetti kees lañ wàcce nee na genn kees ga maam Saliou Fall daa waaxoo ci bayti bi duggoon léegi yegg ba ca fa ñuy jaay jën ya nee na muy lëx-lëxi ba sëq ci ay jën daa koy def ci lenn ndab daane yóbbu leen ma ko ci kër ga daane boroom jën yi ñaata laa jël nee na borom jën yi ne ko nàngam la fan mu fay nee na bi ñëwee ci kër gi waas jën yi maam saaliw dikk neen xarale ma jën wii biir bi nee na ñu xar jën wa daa ci génn ceenu or gi maam saaliw ne raxasale ma ceen gi nañ daa ko ba mu jekk jox ko maam saaliw mu woo benn taalibeem ne ko demal Ndiassane ci Cheikh Bou Kounta ne ko sab taalibe diw sàngam dëkk sàngam moo la doon yéene addee ji te amul fenn fu mu mën a jaar yàlla xamal ma ne ma Saliou lépp lu jóg ci di wiyu ci àddina bu jaaree ci man it yéeg si ci yow liyee waral ñu ko koy jottali lool yi maam Saliou def na ko fii. maam Saliou amoon na jaan ju mag joo xam ne dafa nekkoon fii ci xur wi daan fi lor ay nit ci lu bari jaaxal leen lool benn bis maam Saliou Fall jël ab saako daal di koy jox benn taalibeem ne ko demal ca garab ga jaan ja ne fexe ba andil ma ko kooku bi mu ñëwee yër nu lëm mi xam na jaan ji nekku fi dafa tëdd ci buntu pax mi fi nga xam ne jaan ji fa la war a jaar taaliba fa la tëdd nee na nes kii si jaan ji di ñëw waa gi seen ko muy ñëw mun a ñokket toog ba jaan ji agsi taaliba boobu ne ko yow kat ba ma lor ba ma lor sëriñ Saliou Fall moom la yónni ma naa la indi duggal ci saako bi ma yóbbu la wala nga dim néew mbaa ma dim néew nee na jaan ja dugg ci saako ba lem ba jekk góor googa takk ba mu dëgg yanu ko daa ko andil maam Saliou bi mu dikkee teg ko maam Saliou daal di ko ne yow kat as góor du lore te fii ngay nekk lor jaam ngi rek jaariwut boo demee nga dëkk ci bu lor kenn mbaa nga ne mottu dem nee na keroog jaan jooju dafa rus ba bank na fa ñaari waxtu soog a dem ba ni mu faatoo loratul kenn sëñ Mourtala ana benn taalibe Serigne Saliou maam saaliw daf ko yónni muy dox ba yàgg mu yem ci ñaari gaynde yu mag ci pegg yoon wi genn gaynde tëdd nii genn gaynde tëdd nii kooku daal ne pemm ci gaynde yi daal di wax ne yaa Seex Saliou Fall ñetti yoon bi mu ko waxee taxaw gaynde yi jóg benn bu ne fudd aw nii bi aw nii bi aw nii mu dem yoon ñet ba ba dëpp bi mu jubee Serigne Saliou Fall la ko diw yaa ragal ñaari gaynde képp jànn nga may woo eh, si murtala kooku may maam gunda te it nee na boo jàqee na yaa Cheikh Rafal dawal bala ma laa mbëkk maay ñëw ne la looy dee sàmm ak ju baax ji nee woon na bàyyi seen jaay keere seen keere cam doom yéen a ñàkk jom koo xam ne sëñ Bamba Cheikh Ibra àllaaxira waaw yéen nag. maam Saliou nee na fu taalibeem Cheikh Ibra jaar mbaa taalibeem fukki at yow nga soog faa jaar sax daal laal fa nee bu ëllëgee yaa jàlle waaye kenn du jàlle bismillah